waa Chérif démb li nga couplé ak Maguette lan la non démb damaa rus xale bu jigéen bi di la tatafu nga ne ko eh soril man sama jabar laa bëgg mooy sama xol bu ma kenn yàqal dëgg la góor day osé góor day wane fi mu far ki nga bëgg nga jël takk ko teg ko sa kër <laughs> non démb sama soirée amul ci tëtët musuma dund lu mel nii kon lii mi ngi am ci biir dëkk bi waa xam nga lu ma rey non non non taxawal ma wax li ma ki nga àndaloon mais démb gis nga damaa ree bi may ree bay daanu ci sa kaw tayu ma ko boobu damaa non non non man sa xarit ji jaaxal nañ ma <laughs> ñii dañoo neex Ali dootu ma ko bàyyi ñam naa ko bàyyi naa ko fu mu am. la ilaha na may génnatee ëpp na. waaw ah, njaalo koy ku ko ñam. gaareel rek jël ma ñu dem. dootoo yow nee ma allo rek wala petit message. ma génn. waaw waaw. <laughs> waaw d'accord bisous. on se capte après. ok bye bye. <laughs> njaalo ku ko tàmm dootoo ko mos di ko bàyyi. waaw ay kooku nga àndal safar la. waaw naan kooku nga àndal neex na. yow war nga wax loolu kooku nga àndal. waaw man la nga def nuyoo waaye non nu ma nu ma lay nuyoo. dañoo fanaanul di boo yeewoo doo nuyu. xam nga ni fanaanuñu te nga aye. yéen bi yéen yéen yéen yéen yéen deli yi ngeen def xam ngeen ko. aye ba pare dem sa yoon géré woo sa ay ñuy wax fanaanoo ji kër doxi lu la neex ñëw toog fi di téléphonante ak sa far <laughs> ah, ah. yow liiroo message. waaye yow man damaa attaqué woon ci message. Hmm. dama laa takke woon ci vocal man bay liir say vocal xool naa vocal bi ay maa ngi dem fii te ñëw xaw ma nangam sax takkewu ma la woon ci vocal. maa ngi dem te ñëw déggoo ko de dama la maa ngi dem féexal ji sama xol du ma fi fanaan. ah très bien. loolu moo dul yoon nag gis nga yéen li ngeen nekk nag mi ngi bëgg a ëpp laa wax gis nga lii bu dakkul bu amatee yéen ñëpp laay fase ca biti laa wax seen baat di may na leer. <laughs> ay waay liñ naan namu sa yabu ca ku la ca ba mag nga waaye fase bi ngay wax. waaw na doon léegi léegi. wuy ma soxlawul mboq soxlawul mag soxlawul témoin yow nee may naa la sa baat rek ndax man lii laa doon xaar man j'en ai marre xam nga lu xew li ne ci dëkk bii showbiz bu neex bii buloo bi ci dëkk bii damaa bëgg ànd ak bobet di doj dëkk bi lii da laa soxla. Eh, dama ni man bi may wax ak yow waxuma waxi fase. man ni dama ni la wuy ma boo ma fasee léegi ma woo bopp mu jël ma ma ànd ak moom blow non dama leen bu amatee man waxi waxi fase taxuma fee dama nii la mm-hmm. nga wax ma fi nga nekkoon ak ci li nga nekkoon ak lu waree loolu la wax ma fi ma nekkoon xam nga fan la doxi samay soxla fii féexali sama xol xaqataay ree ba kekku daanu ci kaw ci ma àndaloon <coughs> nii laa def nëbbuma ci dara nag ah bon waaw dalaa naqari fase ma li nga may tontu yow. yow bu ba daal bu la fase ma coroxaan a goosa. xam nga yow xam nga yow déglu ma rek. Eh, ma jàmm non dinaa coroxaan da nga tànga sama xol. ay si xam nga li ma la wax. Mm-hmm. ma lay takk du maag yow rek. ba may takk du maag yow rek. fase ma ah may ma jàmm. ñi war a teew. témoin soxlawul eh, nga ne. bul wut témoin bul wut kenn ku la seedeel. sax bi ma lay takk mu am témoin. man sa bat dong damaa doy. Ah. nee ma asu fase naa la loolu du fase loolu loolu du dagan fase ma composé. fase naa la léegi rek ma composé ñu gil ma tout de suite. xam naa ko yaa ngi faral man lépp leer na ma. waa ba tey. man yaa ngi loolu leer na ma. loo jiñ baax na. waaye loolu lépp leer na ma waaw mais lii lépp dina deñ. luy deñ waaw lii lii day dàkk. ba pardon ma jël sama daal pardon. man damaa laal sa daal damaa jege sa daal man damaa jege bu dee baat bi dafa jub. nga woo ma maa ngi ci kaw. yow baat bu jubee di nga xam ne yow. bam bi la gis nga yow yow ah xoolal waroon na bañ a nekk weer wi ñu nekk yow mais ñii ñii la ah, foofu ngeen wekku léegi ku jóg naan ma fasama dee man dama leen a ragal a fas ah noonu lu kenn mësul def laay def yéen ña naa leen taaj yéen kaaj ñëpp may leen seen baat waaw même ki nga xam ne dafa ne ni doomam moom boppam bu rëy boobu moo tax muy gàdd naan sama dooma la yor yéen ñëpp laay fut dibiti waaw mardi waay yéen lan la waaye yow di am jega di di farantu yéen ñëpp da ngeen di farantu maa ko wax ku yemoon dégg c'est pas mon problème Ndeye Ndiaye. ça va. ça va loo nekk. loo fi fàttewaat. yow jëloon nga sa bagage yëpp di. waaw mais keroog bi nga ñëwee sama kër. Ah. li mu doon waxtaanee moo fi indiwaat. ah léegi koo man wala. waa kër yow soxla ci boppam. man. waaw ah. man bu wax. laa dernière fois ba nga ñëwee sama kër li ma doon wax ci caam. Mm. waaw donc loolu laa bëgg ñëw ñu confirmer ko. confirmer lan. bu ñu waxtaan si parce ma delluwaat sama sëy. <laughs> ah mais non li nga wax moo reetaan lu rek c'est rigolo c'est rigolo ah yow ñëw naa fa ànd fa ak bàjjen ku ne ñu ñëw fa ñu wax ak yow nga jàpp fi nga jàpp ne saye waaw xam nga jigéen sagoom rek waaw xam nga foog ma jaay sagu jaay affaire tuuti. waaye xam na ni man sama jëkkër laa bëgg. ok waaw noonu la waroon demee rek xam nga góor ah. a yombalee yenn yi day taxaw si biir bopp. dëgg la ma métti tuuti. ah la nga doon méttil. waaw <laughs> nag méttil bi dafa métti métti na ci moom moom it fi mu toll nii moom moom ci boppam moo moo bëggatul pour wax la dëgg. nii amuman sax man jot pour ñaanal la yéen ñaar ndax boobu ba tey maa ngi ciy wax ak moom moom jàpp na fi mu jàpp gis na leneen kon loolu mënatuma ci dara. non Thiam mënul gis leneen. Thiam gis na leneen fi mu toll ci yeneen ay yeneen vibes la nekk nii. mënul gis leneen parce que xam nga moo tax. Thiam hmm. man na bëgg. yow la bëgg man te trompes xam nga yow euh, Fatim yow da maa rusoo yow mën nga décevoir du kenn koo rusoo ci kër ndax bañ la indee sa la sama jëkkër jël la teg la sama loxo maa la yëkkati woon. Ah, aj ajal la. di la jox sama doom doom ni mu fooree ni mu kiiwee ma jël sama doom teg ko sa loxo naa la defal lépp lu war ci moom defal ma ko. waaw ah, loolu def nag ko na mu waree. kon xam nga ne amoon na fu ma la teg mhm. yow defoo leen lu dul teg bët sama jëkkër benn muy benn ma toloore ñaar nga fecculoo sama jëkkër fii upaajam ma fekke ma bàyyi mu sedd ba yàlla def li gën càmm yi takk la bam la takkee jote am ma woo la ci pet wax ak yow. Mhm. danga maa toroxal. ma ànd ak bàjjen ñëw sa kër sa famille sa yaay ak say tante wax ak yow nga toroxal ma ñaari toroxal si yow xaw ma ñeent mënatuma nag man maa sës fi mu toll nii mënatuma te fi nga fi nga fi nga wax ci baax foofu foog ma tontu la ci tuuti parce que xam lan moo tax. tontu gi na ngay bàyyi non non <laughs> foofu foog ma am xaw ci laal tuuti. Uh-huh. parce que yéen da ngeen jàpp nii man dama teg seen seen sama bët seen jëkkër alors que c'est pas su fekkoon ne loolu la. kon lu may sëyee ak caam. non si la mais naan kay seen jëkkër a bëgg jigéen. ah, ah non ah, mais yaa ngi ñëw pour intervention. di waxati dama xam nga di wax ni man maa teg bët seen jëkkër boo boobaa loolu day day xaw a. yow xanaa ñëwoo pour mais man dama ñëw pour caam mais bu ma waxal pour waxu baax. mais dama lay laaj médiation moo la indi wala. médiation moo ma indi. waaw ah, mais bu média sama xarit nga. waaw yaa ngi dégg man dama laa bëgg a saabu. dëgg la waaw léegi man dama bëggoon. Mm-hmm. nga dox ci wax ci man dama bëgg nga waxtaan ak Thiam. Mm-hmm. ma delluwaat ci sama sëy parce que man sama jëkkër rek laa am. Mm-hmm. yaa ngi bu ko defee ñu nekkaat kam nañu meloon. parce que man ay affaire de coowoo kii yeeg yooyu man xaw ma ko. Mm-hmm. dëgg la méttil naa tuuti nag mais sama jëkkër laa bëgg nag ndey ñaay nañu waxante dëgg. ah d' accord dégg naa la. ma. defal loolu. waaw am naa benn cheveux kër ga. bu baax naa la ko boo fi indil xarit nga. non non pële ñaa yooyu boo ko fi indee rek day tax du ma sawar. bul ma chantage man bu ma jox dara man damay def te yàlla tax fayeeku ma la damay def te yàlla tax xam nga yéene la ko rek waaw mi non gën téye ko ba lépp sotti man bu du ma laaj dara téye ko ba nga gisal sa bopp yow loo ma yéene nag nga jox ma man li ma ci mën dinaa ko def dinaa wax ak caam incha allah comme que sëy rek nga bëgg dinaa ci def li ma mën ndax diggante ñaar ñu xuloo moom nga dox ci jàmm moom ba googu moom bul xam nu mu toll mhm. dinaa ko ci dox après nag yow loo may greffé loo may neexalee yow yaa xam nga teg ko sama loxo man awma problème. problème mais ma xel nag bu ma fàtte de. bul ma sonal nag di ma sonal di ma message ak yooyu ay dem naan ma baa fàtte woo ma bàyyi ma ma dem sama xel rek dégg nga. d'accord you understand. merci dégg nga. d'accord moom jeex nga moom xam naa stress bi la sën tey de damaa ñëwoon waxtaan ak yow ndax euh, xooluma la bëtu wujj bëtu mag laa la xool yow tamit nga conseillé ma conseil rakk sën umpale woon ne ñu ngi sëy ci kër gi yow sax mën naa wax ne am nga doom Ndey Njaay yàlla may na ko tuut tànk te damaa yaakaan ne tuut tànk boobu sax nag daa rëcc ba ndax ba mag la te mii mag laa te gawma ci àddina sëy bii may sëy ma am ci doom ndax euh, doom nag yàlla moo koy maye waaye ba tey waaye ba mii damaa bëggoon a xam rek fan laa toll ndax ba mii kat tey bu fi jógee gëm naa ne héritage bii du ci bàyyee dara te it man mii di wax ak yow séentuwuma ci dara moo tax tey ma ñëwoon laaj la sama toogaay ci kër gi lan la parce que tamit nag booy sëy fenn nag te amoo fa takkandeer amoo fa dara génn la day yomb te nag rawatina nag ci ay affaire yi héritage man sama xel daf maa mayoon balaa dara xew ma ñaan ko baat pour mën a génn kër gi. Xadi Baba sant naa la ba man ma def sœur man mi sœur laa la def Xadi Baba waaye nag waxu doom bu ci dellu ndax doom yàllaa ko yor mm. yow foo toll. te bàyyi muy góor yàlla rek xam gis nañ fi ku dem ba ménopause ne dootuma amati doom am doom yàlla moo yor programme am de gis nañ fi ñu doon ay xale yu ndaw àndandoo sëy ba ni ñu màggatee amuñu doom gis nañ fi ñu dem ba nekk mag am doom kon doom programme mu yàlla la gis nga lii di judd lii di dee lii di sëy wërsëg lépp nañ ko bàyyi yàlla kooku domenam la boo ko waree am rek ala kulli xaal di nga ko am tamit gëm naa ni di ko am ñun ñu fi am doom lu ñu liggéeyal yàlla bu may ñu ko dara da koo neex rek waaye li nga xadi baaba man waxu tas damaa bëgg nga teg ko ci suuf doo kii tas de toogul ci kër gi sëy sa sëy bi ndax gis nga ba mii ni mu mel du ma la ko jàngal nam la nëbboo noonu la ñu nëbboo ñun ñëpp waaye lu la ci yàlla may di ko am te yàlla na yéex bu fi jóge woon tayit man damay takku li ñu war am keneen ak keneen war ko am moom nga am ndax jabar nga nim ñu takkee la ñu takkee nim takkee sa morom it la la takkee rek ñun ñëpp a ñun ñëpp a yem nous sommes au même pied d'égalité ñun ñëpp a yem ci moom yàlla na yeex ñaanu ko yàlla mu jóge fi tey waaye na sa xel dal toogal ci kër gi sëy sa sëy jàpp sa njàmbur de façon man bu ma jógee moom danaa wax ak moom yow it na nga waxtaan ak moom ndax sa jëkkër la kenn ëppale wu la ci. waaw bu dee noonu nga ko gisee kon baax na essentiel man sama jógee dinaa waxtaan ak moom waaye jàppandi sama xel ak sama xalaat yëpp jox naa la ko man loo ma taxawoo ma jël. donte maa ngi jógoo ko daanu sax waaye nag nit boo nekkee fenn ñaanu ma ko de tey na bu ma sañoon tey jii day gën a dund di dundu di dund di dem rek mais feebar ak dee daal sooyee nañu mais maa ngi koy ñaan yàlla ah mu toog fi rek yàlla baax na. yàlla baax na ñun ñëpp a yem yow daal defal ci sa xel ni man ak yow ak Astou day Ndiaye ñun ñëpp ci yem ci buum la ñu nekk ni ma takkee la la takkee takkee ko sa moroom ah, na sa xel dal toogal sëy sa sëy bi jàpp sa njàmbur. ah comme man yaa fi sama mag. te yaa jiitu ci kër gi yaa ma gën a xam ba moo taxoon rek ma ñëw di waxtaan a yow te dégg naa li ma wax incha allah dinaa ko def. daal bu la kenn xamal la naqari. amul benn problème lu neex lu naqari bu la ko kenn xamal toogal rek jàpp sa ñaamor. soobee yàlla. demoo marché tey xanaa. tey daw ma marché damaa sama bopp bi xaw a metti. marché dama jënd naa toog day saf bi daaxee. ñoom ñoom Aïcha Diagne dañuy jàmbat nee na yenn saa nga xëy doo jaay 1000 francs. moo yow marché ba wow gi laa wax pour mu demal ma. Ah, mu ma su nga ne papa mën nga def ndànk kër du yuuxoo affaire bi du noonu ñii dañu jot wax dañu jot nañu wax ñoom dëgg asu ah, fanaanu fi démb ah waaw fanaanu fi lu mu ci teg mooy dama doon am yu may lijjanti gudde da yu may lijjanti gudde loolu wax la ci borom jëkkër loolu fu mu am keneen a ngi defaroom bi day waaj a génn day waaj a dem ah, waaw bu dee ay xew ak yooyu la mais bu dee xew yi la neen du fanaan neen nen du feneen. maa ngi dem. ah tey dama bëgg a sama xarit yi Dakar laa jëm fi mu nii. Hmm. dem Bali def sama yu baax ma demee resto lekk ba suur jóge fa dem Bali tey moom damay xappi. c'est pas xappi laay woote tey. demul ay xaritama ay ci de am na ku ko fi doon topp ñoom ñaan yu du certain Modou Ndiaye xaw waaw. ñi ngi déggante ñiy génn bërki démb dong da nga den dibi jim la jënd léeguma ko lijjanti naa dibi la jëndal yaa ngi dégg li ma la wax waaw waaw man bi ma lekkee bi nga ma may pare laa lijjanti xool fu dibi ji jógee ci borom jëkkër waaw te man yooyu fawatuma ci de kuy ku fi toog te fanaan noo wala nga génn te bàyyi ma la dama lay fase. waaw man tey duma fanaan. dibi bi nu mu demee dibi bi. mais moom la àndal am jëkkër ànd ak góor moom lay jëndal dibi. damaa duggee xew fàddaam ba di ñëw dugg si taxi nag te taxi ba Moon Ndiaye sama xarit baa nga tax ca kanam. Mm. taxi maam ne ma yéegoon dem Moon Ndiaye dama dugg nga xew xiif nga nañ dem ci laay dibi mu jaay la dibi si la ma jënd leen ñeenti kilo dibi te bu ma ñëwee wat na nga ci ba suuf. Eh, feeñ nga xam nga li may wax nga ñaata yoon laa la tere fàddaam non non non c'est vrai moo la may far moo ko may far non Fadam buy may doomam ñoom ñaar yàgg nañ Fadam buy may doomam ku ne war na Fadam loolu daal Fadam ci boobu moo ma may far ndax Fadam man la a trahir am na lu ma digoon booba ah. man xam naa loolu teewuma la fàddaam ba nga ànd moom laa xam ne kon mun jaay lay doxal moo la ko may xam nga fàddaam moom la doon defaloon eh, am na lu ma digoon papa wax na fàddaam bu baax de kan dama la gën a wax nga yow xam mooy euh, kii ndax yow sa sa préférence u lekk lan la yàpp ginaar wala poisson lépp mën hmm. ma dara parce que ñoom bu fekkee fan ngay lekk yow Dakar euh, fële virage en virage ñoom dañuy def ay coof à la plancha yu lépp laa fay ñu defal la foofu émietté de filet de bœuf accompagné de la sauce fromagère yooyu yëpp dafay am mais bu yow on dirait kii da nga koy encouragé ci dem bi. non dama bëgg bu lemee mu lekk lu. non yow kon da nga ànd ci dem dama bëgg bu demee kon yow. dàq yow fi ne jox nga ko sa aval pour mu dem. non man je pense que sama yoon new kii sa jabar waaw sama tante la. Ah. waaw sa la na loolu tamit a fase mën nga ko mm-hmm. sama rakk na voilà boo génnee ah? la de fa lay fanal kuy yor xale bi. waaye xale bi defaral naa ko biberon awaa ma koy téel. awa man ah. ma dem ak sama passé fa weekend bi. Eh, awa man men sa doom kii sama doom la bëggal cigarette. weekend non xam ne Awa day tux léegi. tux day tux. waaw garaaw mun cigarette la bëgg mu lakk xale bi loolu la bëgg. waaw bul fi xale bi mais. awa tux wayu la gisoo yaay ma ngi di taxawaalu te am jëkkër. wayu la yooyu euh, man maa ngi ñëw maa bii da. na ngay changer après. damay fii fi xale xam nga man nag te du ma mag. xam nga boo duggee si mag dangay dangay dem ba doon mag te man xale bu ndaw laa dinaa sañ te dinaa dugal photo yu ngoon incha allah billaahi li ma la wax danga ko weddi bu yeboo nga nekk kuy soog a juddu sax nday PV dégg nga. sama man waxu man suma xam ne bi lii yow bu ko euh, bel defoon wala fat ki ne doo ko nangu. waaw non duñ ko def parce que ñoom sama bien yëpp xam nañ ko ñoom duñ ma mereel quoi ñoom duñ ko def. xam nañ sama bien yi ma am yëpp. na dina bi xëy na bu dul woon weer wi. ñu nekk kii dama koy fas yi ñoom ñëpp lay fas yi mais ba weer wi jeex weer bi weer bi ñu nekk weer bi ban weer weer bi kenn du ci fas mais weer dina jeex léegi weer bi ñu toog xam nga ban weer la ban weer la décembre xam nga li xaw ci décembre papa day sedd waaw mais lan la ah, ànd yaa ngi fi chauffage ay góor yu dëkk si koñ bi nee nañ kon dañoo am match nawetaan dañoo bëgg a ànd ak man. man waxuma la loolu dama ne la lii nga sol nii fan nga ci fas yéenee jëm lan loolu laa laaj. dama doon dem fii si kaw tali bi rek doxantu. waaw nga sol. li ma sol nekk dafa tàng di. dafa tàng gis nga li nga sol jëlal lii lii xool lii sa zip bi oh, gis nga sa yaram bi hmm. yow fan nga jëm ba solu nii ba poudre may wax nga daal def sa ah, foo jëm. stade laa jëm. lan tàdd. waaw du waa jaxaw ñuy football tey ñoo ma invité. waay ndew Samba. du dégg naa jul dendoo di la woo ak Pepe ngay am am lu fit leen waaw xaar leen ma maa ngi ñëw. ñoom ma dugg si kaar oh, biiruñu. awa yaa ñàkk jom waa awa yow sa jom fan la ne ci yow dimbali ma ngir yàlla wax ma ma jeex ko. stade lan moo ne kenn daa xam ne damaa ëmb. saa daal ñi nga koy waxee saa jeune dem stade dara awa xamal sa bopp. yaa daa man sama ëmb bu feeñul bu feeñoon comme ñoom dinañ ko xam mais ñoom xamuñu si dara moo tax ñu invité ma. dama bàyyi rek ma def war a dëj ci biir kër gi ndax sa biir bi ba tey waxoo koo la biiral. nee nga ma tetaar la waaye man dara dama ciy wóorul. tetaar moo ma ëmbal kay. awa awa amal jom. maa ngi xaar nag ba sa benn tànk bi fekk ca ba ca des maanaam nga naan dangay ànd ak juldandoo yi peppekale di dem di dem lool loolu rek laay xaar ma wax Modou di leen góoral maa ngi xaar la ma maa ngi xaar la ba ngeen génn buntu kër gi. man hmm, du ma dem. dangay jooy boo bëggee ma tegal la ci ay ñuus léegi léegi ma tegal la ci ay ñuus te loolu weesoo awa kan moo la ëmbal. Hmm? kan moo la ëmbal. awa dama kan moo la ëmbal laa wax wax ma ki la ëmbal man xam naa ne tataar ëmbalu la wax ma ki la ëmbal awa lii gàcce la de wax ma ki la ëmbal. xaw ma ku ma ëmbal. waaw man man je rêve wala eh awa eh ku la ëmbal nga ni xamu ku la ëmbal. kon yow awa yow da ngaa bëriwoon ay far rek ku ci nekk rek. Ah, ah, ah. waaw doomu bay ma seet sama xel nag. loolu damaa jaxasoo la awa bari woon nañ fi ba ngay xoolaat sa xel. su woon ma dem stade su ma ñëwee dinaa xam ki mu ci mbedd mi la woon. awa ay awa. awa te sans gêne nga koy defee sans gêne yow. tàng tàngaay ba may bëgg rek fii ngelaw li di ñëw tàng na yaa ngi sa kër. ah xaw ma kañ laay naan café sama biir kër. <laughs> non yàggatul incha en tout en tout cas je me sens ah, voilà yaa ngi projeté wu nga nan lay mel ak yooyu. incha allah vraiment comme wax ko que c'est fini. <laughs> incha allah. amoon naa question mën a bëgg a depuis tout à l'heure mhm. euh, fois bu fi man ak góor. Mhm. yaa ngi ma doon expliquer que ni di ngeen ay projets dans les régions. Mhm. ma doon xalaat ba xam est-ce que Thiès en fait partie ak yooyu war a démarrer bu leen sur Thiès. Euh, sur Thiès pas encore. Mhm. programme yoo xamante ne ñu ngi ciy réfléchir la. mais actuellement sax am nañ programme bu bees au niveau de Kaolack. ah waaw ci Sing Sing bi entrée Sing Sing bi. xam nga déjà Kaolack ñun dañuy déglu li Sénégalais yi bëgg. Mm-hmm. Kaolack mi ngi am ñaari pole pôle religieux. Mm-hmm. na ak euh, waa Baye ak Medina Baye. Mm-hmm. donc aujourd'hui dañuy xool par rapport ak gàmmu yi ñi ñëw foofu di gàmmu la population kaolackoise ak aujourd'hui ñi nga xamante ne dañuy jóge ba extérieur ñëw di gàmmu si. ça leur permettra d'avoir euh, seen kër foofu nga xam ne bu ñu ñëwee dina leen permettre soit ñu def ko maison d'hôte mun na nekk sax ñu def ko investissement. ça c'est très intéressant parce que Kaolack qui connaît Kaolack c'est actuellement c'est un carrefour économique déjà man sama entreprise déjà ñu ngi xalaat projeté wu euh, ci benn succursale bu ñu war a def à Kaolack. presque tout est validé. voilà ça c'est très bien te ñun fu ñu dem am fa entreprise quelquefois la maison mère day déplacé wu et tous les employés aussi qui se trouvent au niveau du territoire dañuy ñëw te bu ñu yegsee aussi ce son dans les hôtels la ñuy nekk dans des séminaires qui peut durer quelquefois une semaine donc day baax bu ñu amee foofu ay maison d'hôtes xamante ni Sablux def na ko fa ñu koy mën di jël. même aujourd'hui pour les maisons de service comme li nga wax c'est une très bonne nouvelle parce que des fois dañuy aujourd'hui ñi nga xamante ne dañ fay am ay entreprises aujourd'hui pourquoi pas ñu jëlal seen employé yi foofu ay kër. nga xamante ne employé bu foofu day mën a nekk foofu nekk à la superficie foofu mm, c'est les mêmes ici wala. c'est à cent cinquante mètres carrés comme fii te foofu moo gën a mag moo gën a yaatu parce que dem na ba trois cent quatre cent mètres foofu y a la possibilité d'avoir un terrain à trois cent quatre vingt mètres carrés. villa day nekk dem ba trois cent mètres carrés quatre cent mètres carrés donc c' partir de cent cinquante. foofu moom Kaolack la ñuy wax donc il faut mu yaatu. non non non loolu c' intéressant c' intéressant parce que sànq da nga wax lu am solo. Mhm. ci gàmmu yi. gis nañu te Kaolack koo xam Kaolack xam ne day recevoir beaucoup d' étrangers. beaucoup de personnes surtout les gens de la diaspora. exactement yu war a ñëw. donc bu gàmmu jotee nga ànd ak sa famille ñëw ak say mbokk. ngi noonu jël say ay jot say invité foofu si si. très bon ça c'est très bien pensé. ngi noonu mi ngi noonu. Ah, su ma gënee su ma gënee dëgër tuuti dinaa ñëw song kaw. yow faaw nga jënd sax ñaari villa <laughs> faaw nga jënd ñaari villa. non mais dañuy xool moom li Sénégalais yi bëgg. donc mi ngi noonu c'est c'est une demande c'est une forte demande moo tax ñu ne pourquoi pas ñu dem ci kaw Kaolack déjà pour un début après nag ñu jéem a continuer comme si ça notre but am ci région yépp benn loo xamante ne Sénégalais dinañ fa mën a dëkk. et le nerf de la guerre les prix. ah c'est à partir de vingt trois millions neuf cent. mais ça c'est très abordable. ah gis nga prix yi moom cherul. yéen ko leen topp loo yor ngay jël ko jëndee ko kër topp. mais ñun yombalal nañ leen ko aujourd'hui ñun VFA la def donc doo fay donc noonu donc da ngay fay par tranche tranche tranche tranche maanaam évolution construction bi fu mu toll rek ci la appel de fonds yi di am xam nga loolu yomb na. te investissement bu wóor moom ci immobilier. c'est le même système qu'ici quoi. c'est le même système qu'ici mi ngi noonu te prix yee ñoo gën a yomb macha allah. non jeex na dinaa leen incha allah <laughs> mais on